xam ne fi la Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk ñu ngi ci biir kuréel bii nga gis moo taxaw mooy kuréelu tubaab baa mbay di waajal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu génn ñu ànd ak moom di ko gunge ba mu dugg ci biir saal bi nga xam ne fi la jàng xasida yi tey jii nag kuréel bu mag bi nga xam ne mooy kuréel 1 Hizbut Tarqiyyah moo war a jàng kon noonu la jàng mi tëddee waaye nag boo xoolee kër gi mbooloo mu bare nga fi teew moo xam ci baas bi la moo xam ci biir salle bi fépp ñëpp nga toog di teewlu ku màgg ku ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ak teewloom ak teewam loolu nag day loo xam ne yaa ngi ci saanu murit ndax nii rek la Sëñ Tuubaa daa dundale ci njaarim loolu nag mooy liggéey bu am solo boo xamante ni murit yi kenn ku nekk fu ne fu nekk yaa ngi fay jógee di ñëw di bëgg tuyaaba di bëgg xéewal di bëgg a teewe li nga xam ne mooy njàngum xasida yi donte duggoo ci biir saal bi yaa ngi am yëg-yëg boo xam ne mel na ne yaa ngi jàkkaaroo Sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mel na ne yaa ngi toog moom mel na ne yaa ngi saafante moom mel na nga ak moom te loolu mooy ak murit ndax murit ndigal rek lañ ko xamee su ndigal mooy lu am solo soo ko jëfee rek am nga solo loolu nag li suñ Tuubaa di wax naan kitaabat yi faaxat su yooxa tarbiya wa kulla sayxin wa su yooxa tarxiya sama xasida yi kawe na suñu tarbiya ak tarxiya ak wépp yiw loolu moo tax xasida yi nga xam ne moom la ñuy teewlu duñ ci doyal guddi gu ne bu ne saa su ne waxtu wu ne ñu ngi koy teewlu di ànd ak moom di ko ànd Cheikh Mouhamadou Mountakha muy guddi muy bëccëg fii nga xam ne fi la nekk muy kër Seexul Xadim di kër Sëñ Tuubaa gu mag gi ñu fay teewloo njàngum xasida mi di fi teewal njàngum xasida mi day foo xam ne euh, kër gu yaatu la goo xamante ni liggéey suñ Tuubaa bi lépp xaj na fi mu yëpp a ngi fi di teewlu xasida Sëñ Tuubaa yi li ko waral nag mooy teew gi nga xam ne Seex Muhammadu Muntaxaa Mbàkke mu ngi fay teew da ko ni ko Sëñ Tuubaa la defee njaareem muy woote mag ba xam ne moo la woote koor gi daan am ñaari at yëpp na am at yi nit ñi nam ko nam ak nam gu jotaay gu jotaay gu jotaay Serigne Mouhamadou Mountakha ñu def ko loolu su amee rek day lu yoo xam ne lu màgg la lu kawe la moo tax mu di kenn bëgg ko wuute muy fii muy fii ci biir saal bi waaye nag ñëpp ñu ngi teewlu àndandoo di xaar di teewlu ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké mu génn ci biir saal bi génn ànd ak mbooloo mi dugg ci salle bi nga xam ne mooy saalu sëñ Moustapha Bassirou bi kon saal bi muy génne mooy saalu Daaru Salaam bi génn ci bâtiment Daaru Salaam bi dugg ci biir bâtiment bi nga xam ne mooy bâtiment Cheikh Mahamadou Moussa Bassirou bi nga xam ne ci la ñuy jàng xasida yi te kuréel 1 Dakar war koo jàng kon bu ngeen xoolee defe naa mbooloo mi ñëpp ngi fi teew kenn ku nekk di teewlu ki nga xam ne mooy Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké kon ñu ànd ak ñaari jëruñ rek ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu màgg la muy liggéey bu tedd bu sell ci ñi nga xam ne ñu fi teew àndandoo liggéey bi barkeb Sëriñ tubaa kon sa baay mel na yaa ngi na en direct ci télévision Al Mouridiyyah fii ci euh, kër Sëñ Tuubaa gi ban yëg nga am ak ban euh, yëg nga am ci jotaay bi nga xam ne moom nga teewee di teewlu Cheikh Mouhamadou Mountakha xanaa di sant yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi rek te xam ne lépp tege na ci yoon bi maanaam noo ngi ñaan suñu borom dolli nu fay yàggal lool te wéral nu maanaam topp topp loolu ci ndigalu sëriñ bi rek lépp lu mooy ndigal loo mun na ca fekk waaw yal na fi yàlla boole yàggal la foofu rek laa mën a yem ciy wax ndax sëriñ bi moom du wax ci moom lenn ndax ci juddu yàlla ci xóomalu mul moom kii fi nekk moom dañoo xamalut ku dul moom noonu waaw ci biir lan juddoo yaroo ci sëriñ Basiiru lan àndaloon bi ñu ko gisatu sëñ Moussa Basiiru bi ñu ko gisatoon moom waaw noonu amuñu feneen fu ñu xam leneen waaw xam nañ ci nag waaye foofu lañ fi ñemee sunu wax daal foofu la ñemee ñoo ci jàpp kon ba tey ñu ànd ak suñu baay mooy mi ngi toog ci jotaay bi kon suñu baay def naa yaa ngi ci teew ci jotaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu ngi waaj génn ban yëg nga am ak ban gis-gis nga am ci jotaay bi nga xam ne yaa ngi teewee ci biir baas bi teew Cheikh Mamadou Mountakha noonu ah, day eh, sant rek sant Serigne Touba rek di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi te ànd ak wér ci barke Serigne Touba ak yéen ñi bokk ak moom liggéey bi yàlla na Serigne Touba taxawul boppam te sàmmaleel boppam te yàlla nañ ci dajeeg tawfeex Serigne bi ci barke Serigne Bamba jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ba tey ñu ànd ak suñu baay bi moom it def naa ne mi ngi toog jotaay bi def naa ne kenn ku nekk gis nga ñu jotaay bi yaatoo kon suñu baay ñu ngi ànd ak yow ci jotaay bi nga xam ne mooy almouridiya fii ci kër Sëñ Tuubaa gi loo gisee jotaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi fii ñëw xanaa sant ci bu baax gërëm ci sun borom bu baax a baax gërëm leen ci yéen ñi xëy bi wax dëgg yàlla adduna bépp rafetal na ko ci ni ngeen ko doxale Cheikh Moussa Cheikh Mountakha nag mën nañu wax ci dara ndax danoo goneendoo fi moom fi kanamam ànd ak moom ba ba mu egsi fii kon nag lépp lu ko ay nit defal ci teraanga rek yeeyoo na ko ndax lu mën a doon rek defal na ko ay kilifaam ba egsi fii kon lu ko waaye defal rek yeewee na lu ko ah dañ ñaan daal mën nu ci wax daal ndax dañ ñaan mu yàgg fi lool nu yàgg ci gannaawam yéen it jërë ngeen jëf seen liggéey rafet na àdduna bépp rafet na jàll ngeen fi yàgg nu yàgg fi ak moom rek la ni ñaan kon suñ lépp dana baax du bu déggee ay ndigalam bàyyi ay tereem tereem sax moom yàlla bon ko bon ko jege suñ léppay baax ñun daal leen xam ci moom mënulu ko wax ci rajo waaye ban ban jógee ba fi ndool moom lan àndal te di ñaan na yow ba ba ba eh, àjjana yow man xiyam rek àjjana rek waaw lépp lépp baax lépp rafet asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu hmm? hmm? waaw kon boo tey almouridia fii ci baas bi nga xam ne ci la ñu teewloo xasida yi Baye Mouride ñu ngi lay ziar baax tur ak foo jógee Abdoulatif Mbaye Mbar di leen siyaara bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bii mu taxawee ci weeru koor gi ak yi weesu ak yi ñëwagut te lépp taxawaay bi rafet di ko ñaanal suñ borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool sant nañ bu baax a baax a baax ndax fi ñu jëmee baax na leer na ñuy ñaan rek mu mu yàgg ñoo womat ñu yàgg a topp ci kawam ba lim ñuy digal duñ def lenn lu lu juy ak loolu ñu ngi leen di sant bu baax yéen waa Hizbut Tarqiyyah ci liggéey bu rafet bu sell bi ngeen def yéen itam di ñaan rek suñu borom taxaw leen jërë ngeen jëf waaw bu baax baax di leen ñaanal gudd fan di ñaanal mu Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér sant nañ bu baax ñi ngi ñi ngi rafetlu bu baax seen liggéey it ak seen taxawaay daal baax na jërëjëf jërëjëf. loo waxaat maanaam baax na baax na waaw